préfet di nuyu bu baax a baax monsieur le maire de la commune de Kayar di nuyu nag seen imam yi nga xam ne ñoom ñëpp ji ngi ni toog di ñaan di eh, di ñaan yàlla li nga xam ne ñaan nañu ko fi léegi yàlla na ko yàlla nangu te jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom eh, Kayar nag nekk na sama dëkk parce que yàgg naa liggéey ak fi moo jëkk nekk sama poste affectation pas Kayar mais le département de Thiès te lu bari ci diggante Jandeer rek Kayaar laa ko liggéey ak ndaam loo may am mbégte ci ñëw fii parce que amoon na fi bu ngeen fàttali ko benn maire bu ngeen daan tudde député te defe naa maire bi moo juróon le maire décédé maire bi ngi fi décédé temps yi li passé nekkoon honorable député te maire euh, député rek lu nekk liggéey nañu ko fi ak moom dans le domaine de la transformation ci wàllu pêche ak euh, léegi dama romb fii benn kii ma gis ñu bind fa ONU Femmes UNIFEM la ñu fi njëkk a indi le Fonds des Nations Unies pour la femme pour ñu jàppale jigéen ñooñu euh, jàppale leen ci lu bare bare bari ci wàllu organisation ci wàllu transformation bi ci wàllu qualité de vos productions fii la ñu ko jëkk a defee ak Kayar loo moo fi jëkk a am tamit séchoir pour les fruits et légumes boobu aussi ONUDI laa fi àndaloon def ko am na maire Khady Ndiaye fii ci Kër Moussa moom itam vraiment transformation fruits et fruits et légumes euh, am na lu bari liggéey nañu ko fi ak moom kon fii ay jàmbaar man laa ma sax xam ci wàllu liggéey jandeer bu ñu masaana dem allah ji Abdourahmane Ndiaye moo ñuy recevoir man moo gën a tax ma bëgg sax le millier rural parce que dama gis li mu représenté woon ci réew mi ak li mu daan liggéey ci wàllu maraîchage ba ñu ne ñu dikk di fi nekk fi di di ci di ci jàpp jour bi may ñëw di jël fonction fii à Thiès dafa tombe ak président Senghor di fi def visite 74 la woon li may wax nii mi ngi ma ma ñëw juste tombé ak loolu ñu ñëw fii ci jandeer maa ngi fàttaliku ñu ngi romb limon boo romb rek limon yaa ngi ci suuf di yàqu te mi ngi àndoon ak Marie Thérèse Bass jarbaatam la woon boo nga xam ne moo doon directrice su ITEA institut de technologie alimentaire man mosuma woon a dugg ci fii ci côté yi yëpp keroog laa fi mos dugg. bi ma bi ma déggee li Senghor doon wax ci wàllu produit yu ñuy bàyyi noonu muy yàqu te ñu war koo transformer te ITA mi ngi ànd ak moom. man bi ma dikkee rek ci loolu laa soobu woon. donc vraiment kon Kayar ay jàmbaar ak tout le tout le c'était la l'arrondissement de Pout. ay jàmbaari fàkk tëdd ñoo fi nekkoon. ci wàllu pêche tamit wax dëgg yàlla ah jëf ngeen ci loo nga xam ne. dëkku Kayaar yegg na foo nga xam ni ñu ci bari ci waa dëkk bi yegguñu fa ndax toujours rek seen njàmbaarte ci géej gi seen njàmbaarte ci transformation bi rawatina jigéen ñi ak liggéey bu rafet bi nga xam ni yéen a ngi koy liggéey euh, su ma su ma laajoon tey le direct le représentant bi nga xam ne moo nekk fii parce que chef de service bi pour le département bu ngeen gisee ñu indi ko fii c'est parce que li Kayaar représenté ci wàllu pêche moo tax ñu def fii mais normalement war bu ñu paree dinañu jox li nga xam ne moom ngeen fii napp par an ba ñu gën a xam importance bi ni nga xam ne foofu la foofu la yegg. li nga xam ne nag moo ñu fi indi tey mooy président de la république son excellence Macky Sall dafa yore njabootam bu yaatu macha allah ci biir Sénégal te bu sañoon fu njabootam nekk rek bu bëtam xonqee dinañu ko gis xëy na nag tànkam mënu la yegg fenn parce que nekk fépp yàlla rek moo ko jagoo. waaye nag bu fekkente ni am na ay jawriñ ak ay ndaw yoo nga xam ne mën na leen a yebal mu yebal leen loolu moo waral man ak Sophie Gladima Sy bi bi nga xam ne mooy ministre des mines et de la géologie léegi la ñu jógee à à Joal te lu mel na li am fii rek moom moo fa amoon lu dal ci kaw pêcheurs yi di njabootam mu ni woon nañu dem ñu masawu leen ñu jaale leen ñu indil ko ndimbalam fii aussi la même chose ñi fi jóge woon li mbir mi amewul fii ci Kayaar waaye yaakaar naa ba ñuy jóge Sumbujun di dem xalaatuñu ni woon dootuñu dellu siwaat loolu moo tax président ni naqar bu ngeen ci am moom lu dal ci sénégalais rek mel na na moom la dal parce que c'est le père du Sénégal c'est le père de notre nation donc mel na na moom la dal ni mu naqaree waajuri xale yooyu naqaree ko ay xaritam naqaree ko waa dëkk bi dëkk bi nee na noonu la ko mbir mi naqare loolu moo waral donc mu ne nañu ñëw jaale si leen indil leen jaalam indil leen njaalu état bi njaalu nation sénégalaise ak njaalu population bi yëpp président ne na ngeen sigi ndigaale ci ñooñu nga xam ne ñoo fi jóge te yal na leen yàlla xare àjjana te am nañu ci yaakaar sax ndax wax dëgg yàlla li leen dal dafa mel na boom mais lu demee noonu nag bu amee dañoo war a gën a ubbi sunu ay gët gën a ubbi sunu ay nopp gën a xool fi nga xam ne foofu la ñu jëm parce que question de sécurité duñu ko war a saytu bu baax a baax a baax ci wàllu napp gi am na ci lu bari loo nga xam ne mi ngi xew te mën nañu koo éviter am na ci lu bari loo nga xam ne mi ngi xew te bu ñu fàggandiko woon fagaru li nga xam ne noonu la war a fagaroo ba la ñuy dem lu demee noonu mun na am am na ci ay pêcheurs yoo nga xam ni foudre bi defe naa moo leen moo leen gaañ te li ko li tax la attiré foudre bi foofu euh, téléphone portable yi ñuy takk ak kii yi nu ñu koy tuddee écouteurs yi du ci du ci jóg moo tax bu euh, am na ay technologie yu bees yoo nga xam ne bu ñëwee dafa am sensibilisation ba mu war a àndal ba ku nekk xam li mu yor lu mu doon ban danger la am ci liggéey bi muy liggéey ak lan la ko mën a indil comme gàllankoor ba nga xam ne tey agent wu pêche yi war nañu ak ñi nga xam ne ñooy liggéey rek ci wàllu sensibilisation ak yu demee noonu war nañu di gëstu fu ne pour xam ñoom lan la ñu war a waxante ak nit ñi pour seeg seen kaaraange ñu mën koo saytu bu baax a baax a baax ci quai de yi am ci Sénégal yëpp amul fenn foo nga xam ne tey di nga fa dem te doo fa fekk ay drapo yu weex ak ay drapeau yu xonq pour wax bu bii tàkk bu ñu takkee bii lan la ñu war a def bu bu xonq bi amee mooy bu kenn dem bu fa bu weex bi nekkee nag fu neex waaye mun na fa dem bu verte la fu neex waaye mën na fa dem donc loolu li muy wane rek mooy bu ñu dee def un peu di déglu même rajo yi le matin wala ñuy seetaan télévision yi bu ñu xëyee rek dinañu xam dëkk bu nekk ci biir Sénégal koñ bu ne dinañu xam la nga xam ne moom moo fa xew ci wàllu météo est-ce que war nañoo dem ci géej est-ce que waruñoo dem ci géej ban heure la affaire biy jeex yooyu yëpp duñu koy xam su ma jëlee rek exemple ñi nga xam ne ñoom gaañu keroog ci ilu Madeleine Île ñoo ñu nga xam ne ñoom ñoo fa gaañu bi ñuy dem xamoon nañu ni que euh, ci matine bi man rek ci sama néeg bi ma gi génn dégg naa lu bari lu ñu wax ci ci météo bi donc ñoom waroon xam nañu la nga xam ne moo fa ne te bi ñuy dem tamit gis nañu ni drapeau bu euh, verte bi wax dëgg yàlla kii nekk fa bu xonq fa ne hmm. donc yu demee noonu bu ñu koy xeeb ay information la yoo nga xam ne météo c' est pas bu doon teg service bu amul fulla mais du jaar ci télévision yi di jaar ci rajo yi te fu mu ci jaar alal lañ ciy fay rien que pour rek askan wi population bi dégg li nga xam ne duñu koy wax kon nañu gën a euh, góorlu xam naa ni fii samay mbokk sama mbokk géndaar yi je suis sûr que ñu ngi fi parce que man dama bokk bokkal ca waalo ba bokk tamit ci biir géndar te ñoom tout souvent du ñuy jaay guerrier man mii sax dama gis ngeen man fu ma toll di jaay naan guerrier laa ndax man euh, waalo waalo laa ak lii laa walla wala wala ma naan lébu laa waaye yooyu yëpp fexe rek ba sa bakkan moo ko gën loo jàmbaar jàmb loo nekk-nekk jàmbaar am na loo nga xam ne war nga koo xool ki nga war a xool nag mooy sa njaboot gi nga nar a bàyyi ak sa waajur yi nga fi nar a bàyyi te yow seen yaakaar ñu tegoon ko ci yow loolu rek war na tax war na tax ku nekk léegi am na benn femme bu dikk ni ma may yaayu Ibrahima Ba mi gaañu foofu à Joal ndeysaan beneen góor dikk ni moom mooy papa kenn ci ñoom encore mais ku ci nekk ngay jooy jooy yoo nga xam ne nee nañu ñoom ñoom mënatunoo dem géej ñu mag ña mais ki doon de ki leen doon demal ñoom ñëpp daan indi li ñuy dunde ci biir kër gi moo dem te emploi tey dafa yombatul donc ku euh, euh, jël euh, ay mesures yoo nga xam ne yu demee noonu dinañu ko mën a éviter wàññiwul dara ci biir CLPA yi maa ngi nuyu ki fi toogal seen anamu ah seen Alaaji Moussa di ko di ko di ko di ko remercier parce que ñoom ñi ngi def liggéey bu am solo à travers tout le Sénégal ànd ko nag avec les sous-préfets ànd ko tamit avec les préfets ma leen di ñaan rek bi gis nga CLPA bi lu ne mën nañu ko ci def pour rek loo nga xam ne dafay sensibiliser nit ñi même ay recrutement ci ci ci ñiy dem ci géej gi ñoom ci seen bopp am na ci ñoo nga xam ne bu ngeen leen bu ngeen leen euh, sensibiliser jàngal leen wax leen nan la ñu war a comporté woo ak bu ñu gisee ci géej gi koo nga xam ni comportement am baaxul nan la ñu mën a def ba wax ak moom je crois que te ñoom ñoo seq géej gi defe naa ne yooyu yëpp mën na bokk ci li nga xam ne dina prévenir ay ay ay malheur wala ay euh, loo yoo nga xam ne daal ay ay musiba ak balaa yoo nga xam ne mun na dal ci seen kaw kon loolu dinañ ci taxaw ñun ñii la police de sécurité de proximité les agents de sécurité de proximité tamit amoon na ci wàllu pêche man de amoon naa ci wàllu élevage mais am na dëkk yu ñu leen yóbbu yoo nga xam ne ba ñu leen fa yóbboo élevage lu ñu fa daan xeex moo doon vol de bétail mais dëkk yooyu vol de bétail amatu fa kenn sàccatu fa woon jur te yaakaar naa ni tamit fii dans le domaine de la pêche bu ñu leen jëlee tàggat leen ñaax leen defe naa buñ ci taxawee ñoom itam li nga xam ne moom la ñu bëgg mu am ci pêche bi wax dëgg yàlla mun nañu koo am euh, beneen bi mooy pêche dafa représenter lu bari pour Sénégal yéen ñëpp xam ngeen ni ci wàllu sécurité alimentaire tey bu ñu manee dem ba amuñu ay mal malnutrition maanaam euh, yenn jàngoro yi nga xam ne day dal ñi nga xam ne seen lekk baaxul tey mun naa ni jën yi ñoom ñoo ko indi te jën yi nag kenn génnewu ko ku dul yéen ñii ci biir géej gi kenn liggéeyu ko ku dul jigéen ñii nga xam ne ñooy def la transformation donc lu demee noonu boo ko amee mu nekk une très grande valeur nekk tamit chaine de valeur boo nga xam ne tey amul benn chaîne de valeur bu ko ëpp importance ci réew mi parce que ñetti at yii nga xam ne moom moo weesu li ñu génne exporté ko maanaam mu génn ci bitim réew ñu jaay ko fa li ci jën indi beneen beneen euh, filière rek moo ko indi mooy affaire mine yi affaire euh, mine maanaam or bi ak yu demee noonu ñoom rek ñoo fi xaw a yem ak ak euh, ak euh, ak jën yi ak pêche bi li nga xam ne moom la ñuy indi loolu nag réew du ko am ba pare di ko foye loolu moo tax moo waral sunu tànk yi moo waral président ni ñu jóg leen ngeen dem ngeen wax ak ñoom sunu gisante nag yàlla bu mu yem ci tey li ñu bu ma sañoon comme ni ma ko waxee ailleurs su ma sañoon lii duma ma fi indi damay ñëw pour ñu waxtaan ci luy développer pêche bi ngeen wax ma gi seen xalaat ñu yenu ko yóbbu ñu saytu ko ñu àndandoo ñun ñëpp ñu liggéey ko te fas ñu ko yéene def également ak yéen dialogue national bii di dikk am na woote bu ñu woote woon xaw ma ndax waa Kayaar ña nga fa woon wala déet mais bi ñu koy am na ñu fa nekkoon nee na bi ñu koy woote ñu ci doon wut mooy dialogue bi comme dafa inclusif maanaam président dafa bëgg ñëpp bokk ci te xam nañu ne que ñëpp mënuñoo déplacé di ca dem du ñoo tànnoon ay nit ni leen ci wàllu pêche bi ñëw leen ngeen wax ngi seen gis-gis ci wàllu pétrole ak gaz bi nga xam ne dafay dikk te ngeen nar a bokk géej gi ak ak saxaaru yooyu nga xam ne ñoo war a toppatoo loolu il faut que ñu waxtaane ko parce que nag loo gis rek bu ñu ko waxtaanewul mun na indi ëllëg problème mais bu ñu ko waxtaanee ba ku nekk xam fi nga xam ne fa nga war a yem ku nekk xam li nga xam ne moo ciy sa ak loolu lan la la mun a indil ëllëg yaakaar naa ne bu ñu ko defee rek liggéey bi dina yomb ci yéen dina yomb tamit ci nguur gi mais dina yomb ci ëllëg ak si biir ñooñu nga xam ne ñoom ñoo fi war a dikk moo taxoon ñu defar benn rapport boo nga xam ne ña dikkoon wax nañu ñu li ñu xalaat ci pêche bi wax nañu ñu li ñu xalaat ci licence de pêche yi wax nañu ñu li ñu xalaat ci matériel bi ngeen di pêche jumtukaay yi nga xam ne moom ngeen di yore wax nañu njaay mi ni mu demee yu ci bari daal waxtaane nañu ko ba tënk ko war a toog ak waa commission bi yor économie ci wàllu dialogue national pour ni ko pêcheurs yi nga xam ne ñoom ñoo nekk à travers le Sénégal lii mooy seen xalaat lii mooy seen gis-gis nii la ñu gisee nii la ñu bëgg ñu doxale parce que président ci boppam li mu ñuy wax mooy bu leen di xaar ba nit ñi di leen interpeller da ngeen a war a jóg dem ci nit ñi bala ngeen a tabax ay politique moom ci boppam loolu lay wax moom lay santaane pêcheurs yi lu ma leen xam-xam wala ki ma fi jiitu lu mu leen xam-xam yéen a ko gën a xam seen bopp yéen a ma gën a xam seen bopp yéen yéenay dem ci géej gi yéenay napp yéenay indi donc loolu lépp nag bu ñu ko waree waxtaane yéen la ñu koy waxtaaneel am na daje bu ñuy woote waat fan yi pour restituer leen maanaam pour delloo si leen li nga xam ne moom la ñu jotoon tënk bu ko defee ngeen joxaat ñu gis seen xalaat ba mu leer ñu koy doog a yóbbu nag ca commission bu mag ba te loolu lépp rek pour bëgg leen a boole pour ngeen xam ni mbir mi seen mbir la ministre bi dafa dikk rek pour euh, benn temps déterminé mu am mission bu ñu ko fi sant président de la république mission lay dox bu mission jeexee dafay dem mais yéen acteurs yi bu serez toujours des des des pêcheurs jigéen ñi elles seront toujours des transformatrices xanaa ngeen euh, romb loolu nekk ay industriel dans le domaine de la pêche te lool laa leen di ñaanal yéen ñëpp donc maa ngi leen di gërëm di leen sant den leen delloo encore indil encore njaalu président de la république bi ñuy ñëw tamit jox nañu ñaari million nañu ko jox famille bu nekk ñu jox ko ci million moom moo leen ko jàppale ci yi nga xam ne yéen a ngi ko doon def ci wàllu ñaan ak yooyu mais daal li nga xam ne moom moo ñu gënaloon mooy ñu gën a taxaw gën a ñaax nit ñi nga xam ne ñooy dem géej sunu ay doom lañu à la fleur de l'âge bu ñu sañoon du ñuy toog continuer di liggéey ci développement Sénégal di liggéey pour saytu seen waajur yi nga xam ne ay mag lañu tey mais lii gënaluñu mais nag yàlla moom lu mu la jox rek da ngay jël parce que moom kenn du ko coo ak moom maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant euh, à la demande de son excellence monsieur le président Macky Sall euh, pour venir présenter les condoléances de la nation sénégalaise ses propres condoléances en tant que président de la République aux familles des disparus du dernier naufrage de, du dernier naufrage de, de Soumbédioune. Le président est très peiné et vous l'avez vu vous-même lorsqu'il y a eu récemment, je crois que c'était la semaine dernière, euh, le naufrage du bateau de la pirogue qui transportait donc des touristes vers l'île Sarpan. Vous avez vu qu'il s'est déplacé lui-même dans la nuit pour aller voir comment étaient organisés les secours euh, et puis prendre des mesures en ce qui concerne l'organisation des secours, surtout lorsqu'il s'agit de naufragés donc, euh, de la mer. Et c'est la raison pour laquelle donc j'ai présenté les condoléances à, à, la famille, aux différentes familles des disparus, mais nous nous devons également de sensibiliser euh, la population des pêcheurs par rapport à certaines questions de sécurité qui doivent être tenus en considération à toute occasion, en toutes circonstances, pour que nous puissions éviter euh, certains accidents au niveau de la mer. Euh, comme vous le savez, les personnes qui sont décédées, ce sont des jeunes qui étaient à la fleur de l'âge, qui étaient des jeunes mariés, qui étaient également des supports de famille et qui sont aujourd'hui partis et ne peuvent plus soutenir leur famille. Et comme vous le savez aussi, la pêche occupe une place très importante dans l'emploi des jeunes, une place très importante dans l'exportation donc de nos produits au niveau international. Le Sénégal fait partie des pays africains les plus cotés au niveau international parce que nous avons aujourd'hui un agrément qui nous permet d'exporter les produits de la pêche vers les États-Unis, vers tout, tous les pays européens, mais également même vers l'Arabie saoudite et d'autres pays Et vous savez que cet agrément, si nous l'avons, c'est parce que nous avons des pêcheurs qui sont de, de, vrais professionnels. Nous avons des transformateurs également qui sont très, à, très, très, très au point par rapport à la qualité de nos produits. Parce que sans produits de qualité, ce que nous risquons, c'est de perdre notre agrément. Et si nous perdons notre agrément, on ne peut plus vendre à l'extérieur et c'est notre balance des paiements qui va le ressentir. Et c'est la raison pour laquelle le président attache une très grande importance au secteur de la pêche. Il y a investi énormément de ressources avec euh, la subvention des, des, des moteurs. La première phase est terminée. Nous sommes en train de finaliser le rapport d'évaluation qui a été fait. Et la deuxième phase va également démarrer avec 10 000 moteurs. Euh, vous savez aussi que récemment, il a participé à la TICAT 7 au Japon, à Okayama. Et il a, on a signé là-bas un mémorandum de coopération avec le Japon pour pouvoir appuyer davantage les éleveurs, euh, les pêcheurs, surtout en ce qui concerne les, les pirogues en fibre, en fibre de verre. Les pirogues en fibre de verre, nous les avons testées en collaboration avec euh, Yamaha, en collaboration avec euh, la CIRN également, qui est une structure qui dépend du ministère des Pêches. donc nous avons, il y a eu des conclusions très positives par rapport à la robustesse, à la solidité donc, euh, de, ce, de ce nouveau prototype. Et ce qui est aujourd'hui envisagé, c'est de pouvoir les vulgariser et les mettre à la disposition des, des, des pêcheurs. Euh, nous sommes en train même d'étudier. Hier, il y a eu une réunion au cours de laquelle il a été décidé, enfin décidé ou proposé en tout cas, un système, un mécanisme de financement qui va permettre aux pêcheurs d'accéder aux pirogues en fibre de verre. C'est le propriétaire même qui est décédé. En tout cas, nous allons, nous allons regarder si au niveau de sa famille, il est possible euh, d'appuyer pour qu'il qu puisse vraiment euh, s'en sortir. parce que ce que nous voulons également c'est de créer les conditions d'une euh, d'un suivi d'abord et surtout d'un appui au, au, à ces familles-là pour leur permettre donc de continuer l'activité de pêche. Ça dépendra. On va étudier vraiment la meilleure façon de les appuyer au niveau du ministère. Ça vraiment ça n'arrivera même pas auprès du chef de l'État. Nous allons pouvoir le faire au niveau du ministère et voir dans quel euh, dans quel euh, sens donc appuyer ces ces deux familles-là qui sont qui sont concernés ou le propriétaire en tout cas qui, qui continuera avec ceux qui vont être là pour lui à travailler avec euh, la les deux familles donc euh, des disparus. Euh, remercier également le, le représentant de votre CLPA euh, qui a fait tout à l'heure un diagnostic extrêmement euh, pointu par rapport à la situation de la pêche. Nous aurons l'occasion d'approfondir tout cela. Et comme je l'ai dit, on vous invitera dans la semaine à venir ou dans les jours à venir en tout cas, d'ici une quinzaine, à une restitution de ce que nous avons déjà fait pour participer donc au dialogue national. Parce que les pêcheurs, tous les acteurs de la pêche, les industriels, les, euh, les, les pêcheurs artisans, euh, euh, tous ceux qui sont en tout cas sur la chaîne de valeur poisson, nous allons les inviter pour qu'ils viennent, qu'on leur restitue ce qui a déjà été écrit dans le cadre d'un avant-projet de document à présenter au dialogue national. Il la commission économique qui va, qui va y travailler et nous avons déjà informé le président du dialogue, euh, monsieur M. Famara Ibrahim Assania, pour que les acteurs de la pêche, comme de l'économie maritime, puissent avoir euh, un espace où ils vont discuter au niveau de la commission économique et pour que les problèmes de la pêche puisse être prise en compte au niveau du dialogue national. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous allons bientôt, au niveau de Kayar, cohabiter avec le pétrole et le gaz. Ça posera certainement des problèmes, mais je pense qu'il y a pas de problème insoluble. Il faut que les gens s'asseyent. L'essentiel, c'est que les gens puissent s'entendre, puissent discuter et trouver en tout cas des mécanismes qui pourront leur permettre de dialoguer, de discuter. Il y aura également un appui dans le domaine de la pêche, ça c'est le, le, le, contenu local qui est en train d'être discuté. Le chef de l'État lui-même a, eu, à présider une réunion sur le contenu local. y a une loi qui a été donc euh, votée sur le contenu local. y a les décrets d'application. Tout cela permettra en tout cas aux pêcheurs de pouvoir se retrouver dans ce qui va être proposé. Nous avons même eu une réunion au niveau du ministère avec euh, des structures comme Woodside qui font partie de ceux qui vont exploiter le pétrole et le gaz. Et nous leur avons dit que dans le cadre euh, de la responsabilité sociétale d'entreprise, il doit être possible d'appuyer les acteurs de la pêche dans beaucoup de domaines pour qu'ils ne sentent, se sentent pas vraiment euh, lésés donc, par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Mais le pétrole et le gaz également nous appartient. vous savez que aujourd'hui le poisson c'est nous c'est pour nous tous c'est pour tous les Sénégalais mais il y a une frange d'acteurs qui exploitent ça ils l'exploitent de façon du point de vue économique ils y gagnent des revenus mais il y a également d'autres revenus qui reviennent au Sénégal si on prend tout ce qui concerne les exportations mais également surtout en ce qui concerne notre autoconsommation en poisson c'est le principal produit vraiment qui permet aujourd'hui de nourrir convenablement les familles dans toutes les régions du Sénégal avec l'apport en protéines donc que nous avons avec le poisson. Donc vraiment, je le président de la République est très peiné par ce qui s'est passé. Il vous présente ses condoléances et il fera tout pour continuer à développer les programmes qu'il a déjà eu donc à faire avec vous, à développer dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et j'espère que tout le monde va s'y retrouver. En tout cas, merci pour la Merci également pour les bonnes paroles que vous avez dites en direction du président de la République. Merci pour les prières et que Dieu accorde le paradis à vos chers disparus.